jantak njolloor bi sa mbir du réer lu ne fàng kenn du ko jeex na xel yi daw bu kenn rëy soo yéree taarix moo lay xamal yaay Aysa umul mu'miniina moo tax du jaas bu gaa yi naan yaa Aysa umul aarifiin Moodu Muxtaar yaay ja umul mu'miniin waaye Baye Mahmoud mii joxoon nañu suñu yaay ji umul aarifiin yaay ay say jigéen ju man góor ku weddi laaj ko waa Faaja koo fa faraas duñ ko weddi Baye Baba Mokhtar mii doy na seede waa Kuufa Mbooro xam nañu Baye daara Mbooro ba jël na saraaya jàng ak liggéey yi moom lañuy ñuy wane man ma ne yooyu la taalibe ñoom duñu yalwaan waa Kuufa Mbaas Paas Mbaaw it am nañu yaay Baye moo koy dëkkal ku weddi laaj ko moo lay waxal li yaay def si bi la digal yaay ba doy nañuy bëggee ba waa Tëngéej yeta ñippilee yaay ñuy seedee ka nettali ay karaama yu wóor si waayu baay bu baay bu gàmmu jotee ba baay taxaw yaa ay sa bëggeel ba jóg taxaw ñu may nuroo ki jant ki weer si ay biddiw ngir jollik leer yaa ay say jigéen ju jub mooy ku dëggu mooy ku nëbbu nangoo liggéey te kawe hitte yaayu baay baaba mii moo xam yitte yaayu faydi bii moo jël jëmmam ak xalalam jébal ko baay te naan baay man maa ngi nii jox naa la lépp ngir jëmmi baay yow boo dee lim jigéen yi raw si Sénégal te boole woo yaay xay yow booba juum nga sawfu la jéeri kenn demul looloo waral bay muxtaar mi jëfee meloo alquran si bi la yaay ne man sama ku soxla jaar fa mooy li lay jëriñ wa aatul buyuuta min abwaabiha alquranul kaamil bi moo di bàyyi ay du neen ndaw si leen jëfee ndigal te mooy lu wóor bay muxtaar mi nexoon na fi ab diir bu yàgg réer ñu mël billahi yaay bañ la gisee la mbir yi leer jaajëfe yaay jaaraama yaay jërëjëfe yaay mbay mi rafet na bay waar yàlla sunu fay la si waar may ñaan si yàlla mu yokk yaay dolli ko yokk aw fanam musal ko hit si bépp si barke baay ne amiin man de dama xamut lu bari si yaay moo tax may taxaw di sàkku ñaan si bépp jullit ak i taalibe bàyyi gërëmal ma lii si barke baay salaatullahi wa salaamuhu ala habibina al muxtaar wal ali wa sahbi amin ya rabbi